bokk yi gannaaw bu nu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonentam ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñépp lu nu yëg ak lu nu yëgul lu nu xam ak lu nu xamul di balu xaq ñépp yàlla na nu yàlla boole jéggal di ndokkeel jullit yi ci dugg si weeru ku tedd ki weeru seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne ci dundug jullit yi mu ngi mel ne ndox mu neex ci ak wér wala boog ngelaw liy dem di dellu si nit di ko jël di ko noy kenn mënu koo ñàkk du ñu nekk ba at nit ñi di ko waxtaane waaye lim boo gis day am jàppal diw bokk yi buñ duggee ci weeru seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne ci moom la yàlla jaarale wan bindeef yi ana fu ñuy jaar ëllëg ba mën a mucc ne ko yow mii kat yowee ki nga xam ne ku la xool gindiku ni làmp guddi bu nit seen ci aw ci àll bi te xamul fu mu fu mu jëmati bu seen làmp buy tàkk wala taal bu ko wóoree ni nite ko taal moo koy gindi rawati nag ak leer moo tax mu ne ko wa innaka la tahdi ila siraatin mustaqim siraati llahi allazi lahu ma fi samawati wa ma fi l ard waxtaanee lu tuuti ci lu bari ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy su ca weesu xamle tuuti ci ne ku yàlla jox azama la azama nag mooy grandeur mooy koo xam ne su àndeek aw nit duñ ne kee moo la ko làq waaye lu ñu sittax ca kawit bañ naan mu nga nële di ko tudd waaye bu agsee da nga xam ne waaja agsi na yonentu boobu nag sallallahu alayhi wa sallam doy na ci sëkk firnde nit ñi gën a siiw ci àdduna bi moo ci gën moo leen gën a siiw foofu li ñu koy tudd tudd ñu ko kenn bokk yi ku ne ci ab dëkk boo xam ne lu mu néew néew ay jullite nga fa da nga dégg ay yoon yoon bu ñu tudd yàlla teg ko ca bu ñu nopp ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ku déggutu noddit tey julli moom kenn tey góor bu liqaamee dana ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kon ñi ko umpale bëreetuñ xanaa ñu jël ci jikkoom ya ak melokaan mi leeral leen ko waaye tur moom dara na kap fu nit nekk ma nga fay jolli bokk yi ku déggutul nodd li xaamut it buy taaya dana ko tudd faw ci taaya ji ñuy taaya ñun dana dana ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam ba mel ne aw turam daj na kapp suuf si waaye bokk na ci li ma tudd léegi muy tedd nga am nga xam ne mooy sut waaye kenn du ko sut di grandeur yàlla daf koo boole daa boole ci gëm ko gëmaale yonent bi gëm naa yàlla daal yam ca faw ñu laaj ko noo def ak muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ko ca boolee yàlla soo ko nangu ne ak gëmam wér na ci jamono ji ñu toll ba ba muy sob suñu borom ba mu ñëwee moom sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ba muy sob suñu borom li fekk adduna ngi fi loolu mooy dox kuy tudd ne gëm nga yàlla faw nga tuddaale ko ca waaye nag noonu ko yàlla tànne ci biir jaamam ñi ndax nee na moom tur bi gën a rëy ci moom gën koo neex benn bokk na ci ba ko suñu boroom woowee fa mu ko woo jox ko fa la mu ko jox waaye ba muy nekk ci nit ñi yàlla moom ba muy nekk ci nit ñi li mu ko doon doye fa mu tàmbalee nee na moo ko ci gën a neex lépp ko neex waaye loolu moom lu ko fàtte subhaanallazi asra bi abdi abdi bi mu ko wooyee nee na moo ko gën a neex ci li koy neex moo tax bokk na ci taraanga ji ko suñu borom teral woo ko woowal ko boppam teralal ko boppam lu mus a teral kenn te dootu ko teral kenn waaye jox ko itam ay kawtéef yu lottuloo ñépp bokk yi ci jaar-jaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn nga dégg ko ñu ne doj yi dañ daan wax ak moom jamaadaat yi yi nga xam ne duñ dem duñ dikk boo demee ci Muhammad al Busiri wal jamaadaatu afsaxat billadi uxrisa li Ahmad anul fusaxaa am na fenn fi mu wax ne wa raawadatul jibaalu summu min dahabin an nafsihi fa araaha ayyama shamami doj yi ñëw nañu ne ko kat lii nga nekk metti na ci ay coono dara du tàkk sa kër tey nga nooy tey nga toj ay lenn leen dem muy wurus nga dem jaay ko am loo dundee mun a jomb naa ko ku yàlla terale lim ma terale toogal rek di xaar yàlla yàlla fàtt du la fàtte mu ne sëriñ bi bind ne borom Tuuba minha salaamul xajari alayhi masyu sajari ak saraxun tasiru su fekkee li ngay wax ne yàllaa la ko yónni na garab gee ñëw mu ne yàlla garab gi na ñëw garab gi ne dar dar dar ba ak si fekk leen fañ toogoon ñu ne ko su fekkee li ngay wax noonu la demee xaral ñu weer wi ñu gis ko mu ne yàlla yaa moom weer wi yaa moom jaam ñi yaa mu yónni ci ñoom ay ca weer wane tàcc xar iqtarabati saatu wan shaqal xamar moo tax mu ne minha salaamu alxajari alayhi mashu sajari lahu inshiqaaqu alqamari bi dil baqa walqidami def nañ ci aw ñamit loo xam ne li ñu ci jublu woon mooy ku ko jëfandikoo tey doomu aadama du ko nettali ba mu ne jëyi loxoom jëm ca ñam wane ko dañ maa tooke moo tax mu ne sumia tasbixu tasbixu taam fi kaffi afdalil anaam خطاب ظبي بكلام معجزة محترم kéwal goo xam ne ab rëbb da ko jàpp mu romb yonent bi kéwal gi wax ak yonent bi te waa ji yëgu ko mu ne ko mu ngi nii dama yóbbu waaye na ma bu ma mën ma nàmpal sama doom rek sama xel daal yonent bi wax ko waa ji waa ji bëgg a di dital mu ne ko loo koy wecc ko mu wax ko ko mu jox ko ko bàyyi ko mu dem yoonam xitaabu zabyin bi kalaam am na it biñ tabaxagul jumaay Madina ëkk goo xam ne dafa daan taxaw ñii dafa daan jekki bu toogee ba yàgg mu jekki ñu yaatal jàkka ja tuxal minbar ba ëkk ga binni ba ñëpp dégg ko waaye xamuñu lu mu mu ne lu mu mu ne loxo ba mu daan teg ci sama kaw di ko tegg bokk yi nag kooku dafa mat di waxtaane loola ci moom lañ ko mos a dégg donte am nañu yàlla yabaloon bu njëkk Seydina Isa alayhi salaam ak ña ko jiitu woon xar baax yi nekk ñu def ko ay mojisaat di laal nit muy wér laal seen ma xamu xool wax loo nit ku mëntoon a wax waaye bi mu ñëwee nag ci la yëf yi tëje moo tax ku ñuy wax Abdullah ibnu Salaam ba muy laata dugg ci lislaam daa gént gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ràññiku lool ci nit ñi mu xëy yolli ku ñëw ne ko damay dugg ci lislaam mu ne ko ayca mu ne ko waaye li ma ci tax di dugg kat dama gént gis la ka ma gisoon ca gént ga ki ma gise ko gën a leer xar kanam moo ko gën a am fasaxatu lisaan ñu ne ko yow li ngay wax ci ma mel ni ku ko mus ku ko xamoon ay ati at moo leen xar kanamam bi laa xool xam ne lu mu wax dëgg la xar kanamam bi laa xam ne lu mu wax dëgg la moo tax bu ñu demee ci mbindum sëriñ sëriñ bi borom Tuubaa dama ciy jël rek juróom benn bayit yoo xam ne dana tegtale ne ka muy wax ci moom lii kooka ku mat di waxtaane la bu weeram bu gusee doonte waxtaane ko at mépp la war waaye rawati ca nag am na ci xasidam gum tënkee ar rahmaanu rahim bokkut ak yaa rahmaanu yaa rahim محمد زينة الدنيا ولذتها صلى عليه الذي البحرين قد مرجا نينا محمد صلى الله عليه وسلم موي واي تايو ادنا كوكو كوكو واجا فودم وال مانام كوكو والي كوكو واجا فودم ياي دان نينا لي گنا نيه سي ادنا موي بëgg سيدنا محمد mooy bànneex dëgg-dëgg boo xam ne bii bu dee lu ñu di def ci gémmiñam la du sàppi saa bu taqamti ko mu gën a saf lam doon saf muhammadun zinatu dunia wa lazatuha salla alayhi alladi albahrayni qad maraja waaye am na fi muy waxee ne samam koom bu ko nit jàppe lenn lu dul bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom laa am doy na ma sëkk ndax kat kii def ci xolub nit bëgg ak bañ ku mu def ci sab xol bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox na la loo xam ne kenn mënatu koo am ku dul ku mel ni yow ganimtu xubbal mustafa wa aktafi bi daaka fal muta kafaafan yaktafi loolu mu ngi la ci xasida goo xam ne mi ngi tudd futuxul mukarrimi fi amdaaxil mukarrami waaye am na yeneen béy yoo xam ne moom wax na wax nit ñi wax nañ ko lu bare bare bare bare bare waaye ba mu ko waxee ba niñ ko noppee gis foofa la nekk béyroo mu ngi nekk ci xasida goo xam ne aayab laqad jaakum la ko tënke rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil muminin raufun rahim nabiyuna al mustafa xayrun wara garadi fi kulli cheyin wa ma yabaahu abaahu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ñi ngeen ji bindeef mooy sama xeymemtéef foo ma séen ma jëm fa moom laa fa dégg di ko wëri donte fa ma jóge it yëfa ma fa ne waaye foo ma séen daal na nga wóor ne tànk yi may dox doxuma tànki dem ci xew lii xew waa waaye nag la ma tax a jóg mooy xeñtu mboorom yonent bi sallallahu alayhi wa sallama rek ak lu mën a doon loo gis ma yëngu rek loolaa tax xeemam téefam xeemam sama xeemam téef mooy loola ak lu mën a doon waaye ci loolu sukkandiku it ba lu mu bañ bañ naa ko lu mu bañ rek bañ naa ko nabiyuna al mustafa xayrul xayrul wara garadi fi kulli cheyin wa ma yabahu abahu lu mu bañ bañ naa loola waaye nee na it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee am naa lu may lu may zikr moom la ndax mooy sama wéttal ci lay bëgg ku bëgg ma bëgg ci nga may bëggale mooy leeral sama xol ak mooy sawaroo samay cër bu may dallu it ci lay dallu ci xent moram muhammadun dikruhu unsi wa mafraxati wa nuuru qalbi wa aadaai wa raaxaati loolu mu ngi nekk ci xasida goo xam ne ñu ngi ko tënki jaalibatul maziyaat wa daafiatul wa daafiatul raziyaat fi mati xayri bariyaat waaye am na fi ñu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam mooy sama mbégte waxtu bu mën a doon rawat nag boo ma duggee moom nett lañ ci nett yu wér ne weeru gàmm bu masan teroo wala weeru koor su weeru gàmm teroo loo wax mu ne teluñu dara xanaa weer bi jàll lu sax mu bàyyi de waaye ma ngee waajaat déwén waaye bu weeru ko tere it mu ne buy jub mu ne xaw teluñu dara ndax gan gi jublu si bu ñu ci nekkee mu ne xanaa ba mu ba mu jàll mooy fi mu wax ne taaha taaha sururi sarmadan wa junnati an il mamaati wal ada wa jannati taaha moom mooy sama mbégte ba faw mooy sama pakk pakk mooy loo xam ne lu la jëm si ci yow yonent bi nga jàll si diggante ak moom te moo te ku wér ci moom dara du agsi ci yow yàllaa ko garanti woon wallahu yaasimuka min annaas waxal li nga war a wax yaa ayyuha rasulu ballix ma unzila ilayka min rabbik wa in lam tafaal fama balaxta risalata wala yaasimuka min annaas moo tax mu ne moom mii moom saxul xadim ku jëm si ci moom yonent bi lay jàll sa digganteeg moom ndax yonent bi kenn mënu ko jàll du ko yéexoos jàll ku ne ma da nga bëgg yonent bi it man defe naa dugg naa àjjana ba noppi ndax mbégte la ma ciy yëg yéegi guma ko ci àjjana dama guma àjjana ba mu koy bind ba miix mais soo ne ma da nga bëgg yonent bi la ma ciy yéege la àjjana neex neex lii ma koy dàqal ndax lii laa gisagoon ak neex itam. waaye nee na su ngeen gisee noo fanaane it bëriwut lool ci sama dund yonent bi mooy sama sa mooy sama garab ci sama yaram ak sama xol shifaau jismi wa shifaau qalbi muhammadun salla alayhi rabbi bi ma jëkk a wax taaha sururi sarmadan wa junnati wa junnati anil mamaati wal adaa wa jannati mi ngi nekk ci diwaanu alfulkul masxuul bi mu ngi wax sifaau jismi wa sifaau qalbi muhammadun salla alayhi rabbi mi ngi nekk ci xasida goo xam ne fatxul fattaax fii matxil miftaax la ko tudd kon boog jëmm jooju su bis ba ñuy dàkk ak feeñam jamono jotee gannaaw bu ndokkee ne jullit yépp waris naa laal tuuti waaj nag jëm ca bis ba yàlla ñu ci àggaleeg jàmm bokk na ci cër yi bu yàlla joxoon foofu laay jeexale yàlla néew na lum jaar ci aw turam ci alxuraan bu jaay ci turam daal daf ñuy wax kum doon am na fi ñuy wax ne maa kaana muhammadun aba ahada min rijalikum walakin rasulallah am na feneen fi ñuy wax ne wa muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul waaye yi nga xam ne daf koy jox ndigal bu ne ko yaa muhammad du ko ne yabna abdillah yaa ayuha nabiy ida talaqtum nisaa fa talliquhunna li iddatihin yaa ayuha nabiy lima tuxarrimu maa ahla allahu lak yaa ayuha nabiy qul li azwajik yaa ayuha nabiy inna ahlalna lak yaa ayuha nabi ba mu àgg wala mu ne ko yaa ayuha rasul moo ne woon it ku toog fa moom buñ ko gën a kawe kàddu boo laajee bul laajut bul wax te boo booy wax it laajal lam la tontu lam lam lay laaj boo ca xamee dara yam ca kàpp yaa ayuha allazina amanu la tarfacu aswatakum fawqa sawti fawqa fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba ka jahri baadikum li baad su ngeen koy wooye bu leen ko wooye ndax gis ngeen ni ma koy wooyee man bu leen ne ko yaa Muhammad wala yaa ibna Abdillah rek laa tajcalu duaa rasuli baynakum ka duaa ibaadikum baxda waaye bu kenn jox loxoy neen it bu kenn jox loxoy neen yaa ayuha alladina amanu ida najaytum rasula faqaddimu bayna yaday najaakum sadaqa dalika xayrun lakum wa athar waaye bu leen nekk ba ñu day dal ngeen naan naa toog di ko nekk dem leen ba saa bu ko soobee bu ngeen jëmee gis ko bu doon jamono ñu naan bu leen ko téléphoné inna alladina yunaaduunaka min waraai alxujuraati aktaruhum laa yaaqiluun moo tax sayidina xamsa radiallahu anhu ak duggam ci lislaam mu ngi jaare woon ci dogalub yàlla waaye fi ko yàlla jaarale daa fekk ñii néewal jullit yi doole lool néewal doole jullit yi bokk di leen lekk lu mel ne am xayalit mu ne waaw yéen ñi ngeen di waxal jël seen gànnaay yi nii jëmale leen ko yu ñu gànnaay te ne li ñuy wax a tax mu ne xanaa li ñuy wax lu kenn xamut li ñuy wax lu kenn xamut tax rek bu dee loolu la bis ni ki tey man dugg naa ci moom ay fan ñaari fan ñetti fan Seydina Omar dugg wala Seydina Omar dugg Seydina Amsa dugg ñoom ñaar daal ñoom ñoo jiitle te Seydina Omar moom yàlla doon na yonent bi doon na leen sallallahu alayhi wa sallam mu boole ko ci lislaam ñaar la yoon mu ne koo ci boolee baax na ba mu ci boolee Seydina Omar ibnu Xataab mu ne kii sax moo gën a baaxati far ndax la muy seen kàddu ko sañ kon boog ñu xam ne it foofu laa jeexale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku yërëm xeetam wi la ku leen ñeewant ku dem ci ay xaadis yi ba da nga ca fekk lawla an asuqa ala ummati la amartuhum bi kada wa kada su ma amutoon loolu ma di ci sama xel laa leen digal ñuy def lii ak laa kon boog bisam jub si na ci ñenn ñu bari li ëpp bokk fa lañ koy dàkk donte am na ñu gën a yaatal ne bis bu set boo ko koy dàkkee jàpp ko yàllaa ko yàllaa ko may loola yàlla nañ ci ak jàmm te yi sëriñ bi wax ne yépp ku ko ca def danga ko am sëñ bi lu mu teg loxoom lu mu teg loxoom la teg lu mu tegoon bëtam la teg ci loxoom yàlla na nu yàlla dimbali te musul ñu ba faw ci pexe seytaane ki ay galgalam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'il muslimina amin